waay fii xal ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi Modou Lo moo ak sunoon di jaas ak Papa Sow moom tamit ñoo ko koy jaal baax a baax Modou Lo roi des arènes mooy ñëw di jaale ci dammeer di Elas Dieng moom ak Papa Sow ñoo dugg si noonu ñuy concept bi muy Modou Lo roi des arènes ñëw daale seen tom prise de l'air prise de l'air en publicité Thank you. ay góor tamit ci teew nañ dëkk ci dëkk bi nag tamit am na ci ay programme bi ñëpp ay góor naanu papaas ay ñooñu lay waa les années meublé ak si nag ku ne xam na ko leer waa ci taalibe ak yaram ak ci kanam xam nga dafa leer waa mu ñëw ñu ci kanam li ñu yegsi xale incha allah bu ñu tolloo rek bu ñu acte bu rafet rafet la sama sama ñu rafet la lool loolu nit bu bu ngeen di dund dara ngeen fekk dama doon liggéey bi ci dundal ay famille di ci jàpp nekkoon équipe Thierno Ndiaye. ci yore dëgg bu ngeen doon ñëw wàññi tuuti ndax mën na mën a jóg waaw wàññi tuuti wàññi waatam buñ demee ba kenn waxul nga daal di yor waaye ñun waaw baax na bisimilah ñu ngi jàpp asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen jaare xale di dem da ngay bañ a ñaan bañ a fëgg kenn moo waral ngay def lii ndax su la neexoon nga ne mbër nga yem ci làmb ji rek su dëgg yem ci làmb ji rek waaye wax dëgg yàlla daal euh, xale bu amoon jom la am fulla ba pare nangoo liggéey ba pare gëm boppam waaw su làmb ji doxul ma nga ca sécurité ba di liggéey ah yàlla na ko yaara xaare àjjana di leen ko jaale yéen ñëpp tamit mbër diñ fekk yëpp vraiment ñoo leen koy jaale ndax ñun suñu wareef rek lañ defa ah. suñu teewee tey man ak Alioune Seye teewal nañ waa Guédiawaye gépp teewal nañ waa Guédiawaye gépp fii ñëpp fi waroon teew ñëpp fi waroon teew ndax xale bi liggéey na ko ci réew mi liggéey na ko ci àdduna liggéey na ko ci sport xale bu am jom am fulla am fayda bari na bari na Brise de Mer euh, euh, bari na combat yi ma mun nettali ci moom bari na euh, Brise de Mer nee la làmba waxul dëgg rek waaye heure bi fi nga dégg champion yi mag yi waru nga dégg ndax xale bu am jom la te mus sa mus sa summeeku nga ne accam tubaarikàlla macha allah mus sa summeeku nga ne ko accam boole caa jom ja ful la ja fayda soo ko seetaanee combat mag booy ñaa xam ni nga xool ko xam ne ndaanaan la daa bëre ba jeex daa bëre ba jeex ba yàlla dogol li muy dogal at yeneen combat yi fi jaar yu bëree baree bëri bëri moo tax nee naa la ba ma seetaanee combat mu mujj bii dama ko seetaan damaa jooy ma xam ne brise de mer ma ma xamoon at brise de mer mi ça kon nag nañ ko ñaanal yàlla na ko yaara xaare ajjana yàlla na ko yaara xaajana yàlla na ko malaaka yërmba ne teeru yàlla na ko malaaka yërmba ne teeru li ah waaw Touba la ma fekk Touba la ma fekk wax dëgg yàlla euh, maa ngi koo gisee ci non dan ma ko wax am ki ma ko wax euh, dana ci istati kii la ko gisee Malick Thiandoum ci istati Malick Thiandoum la ko gisee ndeysaan ma xam ne ñun ñëpp famille lan ñun ñëpp benn lan nan yéenante jàmm tey wax lu baax di def lu baax àdduna amul solo fii léppay jeex kii xale bu ndaw la ki dem xale xale day dem mag day dem fii amul ay eh, mag doo dem de déedéet xale day dem mag day dem kon nag nañ yéenante lu baax di waxante lu baax di defante lu baax di sàngante malaaka eh, sutura sutura nañu suturalante nañu suturalante te bàyyi wax yu ñaaw bàyyi yàqante bi man maa mën a gis si kii lu bon ma xam ni lii su ma ko génnee réew mi tas moo suturaal ko nëbb ko làq ko xam ne àdduna amul solo ñun ñoo bokk liggéey bi ah nanu yërëmante xoole kii dem tey nekkoon xale bu yaru nekk bañkat ah nan suturaal nan te tey waxante lu baax te bàyyi yàqante bi àdduna amul solo fii léppay jeex léppay jeex yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla xale bii dem tey yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko malaaka yërmane teeru yàlla na ko malaaka yërmande teeru fan la doon sëñ euh, màggalu Touba bi mu doon dem lii am yàlla na ko xaadim rasuulu teeru yàlla na ko maam Cheikh Rahma Fall teeru ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaar àjjana daal xale bu yaru dem na xale bu baax dem na vraiment ñoo ngi leen koy jaale yéen ñëpp waa Grand Médine gépp ñoo leen koy jaar champion yi fi nekk at fan samir supa ñi ko bëggoon ñëpp ñoo at soxnaan ñoo ngi koy jaale at ay famem yëpp yëpp jërë ngeen jëf déggul ma wax ñun famille lanu ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp ndax ñoo bokk bëgg-bëgg yow tey sur woon làmb doo fayeeku sur woon làmb doo fayeeku kon nag soo amee naqar dañ ko war a bokk soo amee bànneex dañ ko war a bokk loolu mooy àdduna ndax ñoo bokk bëgg-bëgg man su woon làmb kenn du ma xam su woon ak kenn du xam su ma xamee làmb la affaire bi man géejawaay laa dëkk àdduna bépp xam nañ géejawaay laa dëkk ma am lu ma fay tekki comprendre nga waaye ñun ñëpp famille lanu ku ci bi dajeeg sama rakk nag ah deen jaay sunu bis deen jaay sunu bis lépp ci kafak ree ak fair su jeexee jeex na ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndeg baay dañuy liggéey ndax sudul mbër mi Alioune Seye ngi nii tey sudul adversaire am du am xaalis adversaire am sudul Alioune du am xaalis tey ku ciy bëreeg Alioune lu ne dinaa la ko wax waaye su jeexee jeex na ndax lan na dañuy jaay suñu bis rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay moo tax àdduna amul solo nan ko rafetal famille làmb benn famille la muy mbër ma manager ba reporter ba ah arbitre ba ñëpp benn famille la ku ci na am lu la métti daf laa war a métti sa morom ku ci am bànneex da ngeen ko war a bokk ku ci am naqar da ngeen ko war a bokk kon na nan ko rafetal te waxante jàmm ñun ñëpp benn lan daal te yéenante jàmm jërëjëf wasalaam ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te am na gu original 100 pour cent pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mba sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www point Eric Favre tiret nation point sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu corniche ouest